sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate nuyoo nuyoo bi gën a sell muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan suñu borom yàggal ko fi bayim yene liggeel Serigne Touba sun borom motliko ak njabootu Serigne Touba gep nik ki ñoo ngi ñaanal Cheikh Ahmadoul Moukhtar mi xalifa Cheikh Mouhamadoul mustafa sun borom yagal ko fi yagal fi njaboot gep ci ginnaawam ak njabootu Cheikh Mor Kayre Serigne ibrahiman Kayre mi nga xam ne khalifa bi ci ndigalam lañ ñëwé fi ak jëwriñam Serigne tiarno kon nak Serigne Ablaye ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di wax assalamu alaykum wa rahmatullah kep ko setan Mouride TV ñi ngi lay nuyu bu baax baax jerejeuf serigne mam Mor Kayré ci nuyooyu matale yoy kon dañuy daldi di dugg nag ci euh, waxtan wi euh, niñ ko waxe ci ak njaalbeen rek ñu ngi ko di ci anda ak mbollem cheikh yi yi nga xamne dañu aju ci kër gi kon serigne mam Mor nga ko ci kër kenn ci gor yalla yoy muy serigne Mor kayre ñu bëgg na xam tuti ci digëntem ak cheikh Modou mustapha ak yeen ñi nga xamne ni nii ci kër gi ngeen bokk naka ngeen di wajale bis bu tedd bi nek ci suñu kanam jërëjëf seigne Abdullahi noo ngi lay sant bu baax waaw digganteem ak Cheikh Mamadou euh touté rek manes na ci leeral moy Serigne Touba moko ko booleeg Cheikh Mamadou moussa mu bokkoon ci mag ñi nga xam Serigne bee len waxan bi muy dem ci 1890 la anda nak Cheikhul Khadim waye bi serigne Touba di dem ci geej gi dako ko mam tierno bi mu ñëwee mu ne ko ñepp lew nan la ni sungu fus njël bam dess Mor Kayre lam ca jublu woon nag ci misaal li ma bëgg a leeral rek xañ na booba seex mu Moustapha bi la ci jublu bi sëñ Tuubaa ñibbisee yónnee la woolu sëñ Mor Kayré ba mu ñëwee maam Thierno woo ko ne ko sëriñ bi nee na nga ñibbisee mu dellusiwaat ci Seexul Xaddim bi Seexul Xaddim nekkee ci moom bi mu nekkee Seexul Xaddim di liggéeyal sëriñ Tuubaa sëriñ bi moo ko jël boole ko Cheikh Mamadou Moustapha ndax ci saayir bokkoon na moom ñi nga xam ne dadaa jël Cheikh Mamadou Moustapha jàpp ci loxoom jël sëñ Fallou ko moom Cheikh Mor Kayre daana def loolu kon jàpp naa ne bi muy ànd ak mu Moussa booba xamal na ne Serigne Touba moom la leen di booleel nga xam ne bokk na ci juróom-ñaari mag ñi nga xam ne moo mooy ki ci jiitu bi sëñ sëñ Manoum Moussa di sañ Taïf sëñ Mor Kayre bokk ñi ci jiitu mu tànn juróom mag ñu wóor ko sañ ci Taïf kenn ku ne 2 kilomètres moom Kayre googu ci tayif sëñ Manoum Moussa bi muy dem Taïf sax daa ànd ak Cheikh Mor Kayre kon diggante bi Cheikh Mouhamadou Moussa maanaam diggante bi sëñ Touba waaye sëñ Tuubaa moo ko boole waat ak mu Moustapha moo tax mu wax ne ci ay woy yu baree bari yoo xam ne daanaka woy Cheikh Moustapha muy muy muy wax ne euh, ci liggéey bi Cheikh Moustapha doon liggéey muy indi Seexul Xaddim ci ci dëkk bi muy jumaa ji muy lu mën a doon wax na ci ay bayit yu am solo yoo xam ne wax na ca bay wax ne euh, euh, bi ko sëñ Moussa Ka njëkkee woy sax woy mu Moustapha woy indil ko ko moog sëñ Bay Jaxate wala ku mën a doon moom moo lay tontuwaat ci woy booba la wax nan Cheikh mu Ka njàmme góor nga jaajëf waay kayre kañ la faf di la way yow mi woy mbërëm mii fi man yow siraaj ji yàlla na nga way déglu leen te sax ci amin njàmme yàlla na am la ko de àdduna ak alaaxira njàmme yàlla boo fi talee booba mbërëm mi fi man mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha booba la wax nan xanaa xamoon ne Moustapha couleur suñu way booba loolu la wax Cheikh Moussa Ka daane bëgg bàyyi di bañ ko mu jur waa wala ay xalaas li xew boobu ay waxin la woon waxin boo xam ne da leeral kan mooy Cheikh kon nag moom bokkan na ci ñi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moussa euh, moo moo ko defal lépp ba bi fi mu Moussa jógee mu ànd ak Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma ba ci nekku Cheikh Amadou fii lay doon di jógee ndax fan wi daa xaw na gudd fan wi guddal na lool kon nag noonu la demee woon diggante ma Cheikh Moussa daal booleeb Serigne Touba la ndax moom ba mu waxee ne sëñ Touba suñu borom a ko booleeg moom ba muy ñëw ci sëñ Touba tam suñu borom a ko wax ne ko ndax booba daa waajan ngir dem siyaari ji yonente bi ngay mag ñooñu boo masaa am xam-xam doon kilifa loolu rek ngay xalaat waaye nee na ba ma jógee ca jëkk màkk laa namoon ak madina ak saam ndekk booba mbàkke la jëm leeruk bamba gi mooma ñot di may dox di pempem yi ba yàllaa ma ko woon ma ma booleeg moom ci ay ay nelaw woon ma melaw yonam ba dootuma selaw bamba ma may man kay may wone xar baax yi yonne ñu dut war a lu góor téléphone lu yonente bi ma a def fekkee ma ko waaye dinaa leen ko wax loolu nee na ci ngërëmal ci ndimbalal sëñ Tuubaa ko amee loola nag kon ànd ànd ak sëñ Tuubaa la waaye ànd ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tam moo ko wanaat moo ko joxoñ Cheikh Moussa mu ànd ak Cheikh Moussa liggéey bi yëpp moo tax ñu féete Daaru Xuddoos euh, mboolem seex yi kii itam nekk Daaru Xuddoos lii moo waral diggante bi kon nag amee yeneen question yooyu laaj wala leneen loo bëgg ñu xóotul ko tam ñu leeral laaj incha allah sëñ Ablaye. sëriñ Maam Mor Kayre comme waxtu wi dafa guddul daanaka mën nañ ne laaj bu njëkk bi matale na sëkk waaye beneen laaj bi ñu ciy toftal rek mooy euh, bala ñoo laaj laaj bi sax dégg nañ ci sañ biir seeni biir kàddu nga leeral Euh, tàbbeek sëriñ Mor Kayre ci kër sëriñ Touba wala kër Cheikh Modou Moustapha mel na ni kon ànd bi euh, jiitu na Cheikh Modou Moustapha sëriñ Touba moo ko defoon waaye dafa mel ni comme ni nga ko waxee bi mu koy defit da ko doon tegtal rek Cheikh Mouhamadou Moustapha mel ni kon bu ñuy lim seex yi nga xam ne nii dañoo nekk ci biir Daarul Xuddoos sëñ Mor Kayre kenn du dem bàyyi ko ñu bëggoon a xam sëñ taxawaay dëgg dëgg dëgg ci biir liggéeyal Cheikh Modou Moustapha rawatina ci bisam bu tedd bi nga xam ne ni moom la ñuy dëgmal jërëjëf sëñ Abdoulahi maanaam bis bu tedd bii ñu dëtmal bisub murit yëpp la ah, léeg-léeg ma koy faral di wax ñu bari duñ ko bàyyi xel naan bisub Cheikh Moustapha wala bisub Cheikh Moustapha ñetti fan ni baraxlu lañ koy màggal waaye bis bi bisub sëñ Tuubaa la mooy bi sëriñ bi nekkee njaareem te suñ borom leen ko mu nekkan mu jaddit ne leen Moustapha nawetu maa yu jadditu sunnatool xaraawe ni ahmadu diinun siwaa islaami laa yuhmadu xindal ilaahi wa bihi mu jaddit mu jaddit boobee bi mission matee mbollem mu jàddi jaaran wala mbollem xawsi wala mbollem manam yonente yi fi jaaran salay lay law ñi fi jaar ñep bi seen mission maté cheikhul khadim tam bi mission maté cheikh moussa ci bop moko doy ndax boba waxan nako ne doo ko waxan niko euh bo tollee ci muharam ci nangam euh, bi sangam fum la mën fekk na nga fekk ma jaarem boba neena mi ngi ko fekk cheikh moussa toy waye xelam ne yar ci bis bi ko cheikhul khadim waxan Euh, ci fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram maanaam muy weer wi ñu nekk xelam na yaru ci loolu mu daal di wàññeeku fekk dem njaareem fekk fa Seexul Xadiim bi mu ñëwee fee a fekk sëñ sëñ sëñ mag bi dem mu waajal ko indi ko Touba boole ko ñam koy booleel moom toog toog foofa xaar xaar boobu yaakaar na ci doomi Seexul Xadiim yi ku ci dul sëñ Fallou sëñ Abdou ñoo bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo fekkee bi ñuy waajal Seexul Xadiim ak sëñ Basiiru sëñ Basiiru moom njaareem la jóge ànd ñoom ñëw waaye sëñ Fallou ak sëñ Blaat ak ñeneen ndax sëñ Blaat sëñ am sutu jaxte moo ko wax bokkoon na ci ñi teewee jataay booba léegi bis bi li tax nga ne bis bi nu koy waajale bis bi murid yëpp ko war di waajal ndax sëñ Tuubaa ne bis bi mooy bis bi ko gënal te Cheikh Mouhamadou Moussa daane wax ne bis bi day am na ci ñennat ci mag ñi mel na mag moo xam ne bis bi daa ma sa ñëw mu am ay teq-teq ba mujjul ñëw bi mu ñëwee wax ko Cheikh Moussa Cheikh Moussa ne ko fu mu la mën a fekkati bis bi fu mu la mën a fekkati bu doon da ngay sot dàll yooyu nanga ko sol ba wala bu fekkee da ngay takk fos na ko takk ba fas wi tële nga dox yow ba tële ndax guddi gi képp koo xam ne fekk na la Tuubaa maanaam mel nga ni koo xam ne yaa ngi doon di gën jamono guddi gii nga xam ne moom la Seexul xaddim ñëwoon te bokk na ci guddi yi nga xam ne wax na ne Seexul Xadim day nekk ci dëkk bi kon nag guddi la goo xam ne murid yëpp ko moom mooy guddi gi ñu indee Seexul Xadim Tuubaa loola ko sëriñ Tuubaa wax ne ko fexeel ba yóbbu ma Tuubaa mooy sama bëgg ndax sëriñ bi itam jaayante gi mu jaayante woon yëpp mooy alisna amanu wa amilu saalihaati tuubaa lahum wa husnal maab loolu la ko suñu borom dëlën mu xam li ci nekk mu jaayante Touba yenu nattu yépp ngir dëkk bi kon nag dëkk bi amul lu dul moom bu bu bu amee loola tey suñu borom war gën gi mu gën a jige suñu borom mooy dem na war a fekki suñu borom ngay indi ko barab bi nga xam ne bàkkub suñu borom la muy Touba kon nag loolu la mu Moussa defan kon bis bi dañ ñu bari dañuy wax ne bisub euh, euh, Cheikh Moussa waaye bisub Cheikh Moussa ñetti fan yi baraxlu la bis bi bisub sëriñ Touba mooy bi ko Serigne Modou Moussa boolee ak ñam koy boole ñu indi ko biir Touba waajal ko maam Thierno maam Cheikh Anta ak ñeneen ak ñeneen euh, ci ni ko mën a waxee leeral mag ñi ko waajalan euh, ba ba ba tey jii muy muy bis boo xam ne bisu mbégte la euh, noonu daal la demee ndax jàpp nañ na daal bis bi ñun ñoo ci waajtaay woo xam ne amuñu lu dul moom ndax bis bi ci Serigne Modou Moussa bari na wax na ne képp koo xam ne di nga ci feeñ dootoo nëbbu mukk ni mu daa waxee ci tollu àllarba noonu la waxee ci bis bi kon nag bis bi mboolem jàpp Cheikh Mor Kairé gi ñu ngi ciy daje ay di ko waajal bu baax a baax ah, ngir bis bi gan yi ñëw te daayira yi fu ne la ñuy Mbuur Sanjara Tiwaawoon fu ne bu fu lay jóge fii ñëw ci kër gi ñu yenn ko dundal ba asamaaw set noonu lañ koy defee kon nag sëñ Ablaye nii rek la ñoo ngi ñoo ngi leen di sant bu baax di sant itam mboolem liggéey bi ngeen di liggéey diwaan Mouridina ñoo ngi leen di ñaanal liggéey bi sëñ Moussa ñom ñi ñëpp liggéey bi yalla na suñu borom barkel ko taxaway bi rafet na lool te sant na ci bu baaxa baax jere ngeen jëf. jëf sëriñ Mam Mor Kayde mu melni niñ ko waxee ci ak rek waxtaan wi minute yi neewna na tonawuna euh ci euh waajtaay wi nga xamne ni ñu ngi koy and ak wa diwanul Muridina ci bis bu mag bob nu ko waxe leg rek di bisub Cheikhul Khadim di bisub jullit di bisub murit yep waaye comme Cheikh Mouhamadul Moustapha moo ko taxaw moo ko tàmbali ba lépp lu luñ ciy def rek mën nañ ne moo ko jëkk a def ba ci seetal dëkk bii ñuy def tey jii wax nañ ne daana ci taxaw taxawaay bu am solo moo tax mu gën a siiwee ci màggalu Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye Serigne moor leeral na ko kon lii benn la woon rek ci jataay yi nga xam ne nii àndoon nañ ko ak yéen di ko waajal màggal gi te programme bi ñu boole ci mbooleem cheikh yi nga xam ne nii dañoo aju ci daarul xuddoos tey ji nag ñu dalaloon waa kër Serigne Mor Kayre ci teewaayu Serigne Mame Mor di jànkato di jànkatu xasaayit loolu la ñu waroon a jëkke dëgg yàlla di ko ndokkeel bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi di leen jox dox daje incha allah rabbi beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte sai da ni wiu na yawon ya dawo te ya dawa te mustawa